kon ne man dama gëm ñoom la ñuy def wala fañ jaar mais dans ce cas pourquoi du ma dem ànd ak ñoom directement man dama teel la wax ne man bokk ma yeewi ànduma ak ñoom même élection locale damaa te mu naa bokk ak ñoom xam ne jamono jooju ñoom ñoo xewoon ñoom la di gi topp mais ba kañ mais defuma ko parce que xam nga. ba tey ñoo xew de. non ñoo xew ba tey <laughs> nañu li ci kanam rawuli gët. li ci kanam rawuli gët ba tey xam nga ni ñoo xew. Aliou Sow mais mais non defal nag yow ñu ma seen wax fi mu nekk nii est nekk nañu aw say. est ce déggoo nañu en tout cas bu ñu déggoo tamit moom la mu wax bërki démb gaaral ko ña mu àndal naan man ñi ma àndal suñu coalition suñu bopp lañ maîtriser ñeneen ñi xamuñ ci leneen moo wax na ko fi. walloo tax muy wax. ah mais kon kay gaaral amee. yow yi kay moo tax may wax man. may la gaaral bu amee. waaw ah, mais xam nga boo nantee boo nantee juróom-ñetti fukk député du ñëw du yeewi kese. Mhm. yeewi la wala la ñuy wax bu ñu leen boolee. waaw kon loolu kay bu nekkee ne moom na mu waxee loolu daa am lu mu feeñal ci lu làqu wane na kon ànd boobu yàqu na. d'accord ci li mu moom laa wax. ok aw ci nag leneen lu ma xibaar bu ma leer mais mun naa sukkandiku ci li wax moom la ñu ne wenn say la boobu juróom-ñetti fukk loolu matatul xëy na